Ah oui, it Baye Modou la nuyu la ziar. maa ngi lay nuyu Tounkara. c'est Modou seen kuréel le ban nga ni euh, mouvement pour le développement et l'entraide ànd de suñu gox bu hmm, depuis quand la. Euh, ñu ko créé depuis 2021 et je salue au passage le président Serkan Diop et tous les membres du mouvement. yow ya yor sen cadeau. maa yor la la communication digitale et la propagande oui. ñaata ngeen. Euh, notre mouvement compte plus de 100 membres. et on est au total 200 200 et quelques membres. léegi yéen leen tax a jóg. li ñu tax a jóg mooy euh, xeex jéem a teg ay jalons yoo xamante ni dina tax suñu gox bee di Jurbel mën a développé wu. ndaxte kenn umpalewul ne Jurbel euh, mi ngi bëgg a yàgg waaye ba léegi développement am euh, reste à désirer. donc déet Jurbel képp daa dellu ginnaaw. daa dellu ginnaaw. daa dellu ginnaaw moom laa moom laa wax nii ne dafa dellu ginnaaw donte am na nag yoo xamante ni jot na fa jot na fa agsi donte doyul. ndaxte yéex na itam la fa agsi mooy le programme Promoville bi mu agsee am na foo xamante ni ay tali ñoo fa ñàkkoon waaye. programme fan tali diggante fan ak fan la Promoville def euh, diggante ci biir Diourbel def na fa diggante Kër Cheikh ga foo xamante ni dañ ko yàgg dañ Kër Kër Cheikh muy Kadduga ba Kër Baylaay dañ ko yàgg jooy. ndax tali bu yàq moo fa nekkoon. def na fa ay pavage yoo xamante ni dana mën a jottali PRA muy pharmacie régionale d' approvisionnement. ba ci euh, lycée d'enseignement général ñëw si hôpital ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne le président de la république def na fa ba waaye waaye itam euh, ci tali yooyu noonu dafa am yii mujjee ñëw euh, day créer ay choc yu bëri donc daf may permettre sax ma def ma wax ko parce que amuti doo daan donc askan wi nag boo wattuwul danañ jug defal seeni i doo daan léegi yéen li leen tax a jóg mooy na Jurbel suqaliku na Jurbel suqaliku ñu jàppalante suñu biir comme entre léegi Jurbel ban yoon lañ war a jaar pour mu suqaliku Jurbel yoon bi ñu mën a jaar pour mu suqali ko d'abord euh, il faut ñu wax que ne Jurbel dafa am benn euh, lieu boo xamante ni fa koom gi di jóge muy marché Ndumbe Diop te muy benn marché boobu képp ci Jurbel gi yëpp et que. marché boobu jagul de. jagul waaw parce que lakk na 2016 ren lañ koy doog a ubbiwaat. waaw léegi yow marché bu jagut. Mhm. nan lay suqalee ab ak dëkk. waaw parce que ña nga xamante ni ña nga fay daan seen doole itam xay na ñu ngi ciy gis seen bopp. donc donc dafa dafa dafa euh, dafa xam nga ni informel. Mhm. du yóbbu fenn dëkk. nangu naa. te marché Ndoumbé Diop googu boo fa demee gis nga lakk ga fa amoon parce que yooyu yëpp xam nga ay dañ naan boo court circuit moo ko indi wala gaz explosé na nangam sangam mais day wane ne euh, ñàkk nekk ci ay anam yu jàppandi. Mhm. moom moo jur loolu léegi nag marché boobu tey ubbiwaat na mais marché bi dafa informel. waa damaa wax benn point muy marché Ndoumbé Diop. sa reste d'autres léegi ci marché boobu noonu nga taxaw laay ñëw. Euh, marché bu informel la d'abord parce que fii ci Sénégal itam boo fi gé boo fi bëggee génne li informel. ah sëñ Tunkara doo fi dugal lu formel la am na lu formel nangu naa am na lu formel mais li fi formel ab lim bu néew la fi. est-ce nga dem marché central au poisson. nga fay dem nga xool. Mhm. Euh, sama rakk euh, Abu di ko Abu mbay di ko ziar. Mhm. vraiment defoon fa liggéey boo xam ne. marché boobu yow est-ce que mën nga imaginer marché boo xam ne am ay gazon am ay fleurs. non non. marché central au poisson léegi li ma buggoon wax mooy euh, njaareem yow nee nga waa Promoville ñëw nañ fa defar nañ ay gox ce que loolu mooy suqali njaareem. non léegi wax nga waa Promoville li ñu def. Mhm. doomi njaareem ñoom lan lañ def lan nga mën ñu wax lu doomu njaareem def lu mën a suqali dëkk ba. jërëjëf euh, boo jëlee doomu njaareem yi dafa am ñoo xamante ni ñu ngi investir ci Euh, wax naa la sànq marché Ndoumbé Diop mais da nga ne ma marché Ndoumbé Diop c' est informel am na ci ay doomi Jurbel yoo xamante ni investir nañ feneen fu dul ci marché Ndoumbé Diop euh, mën naa jël ku ci mel ni Malick Seck pour ne pas faire la publicité investir na créer une entreprise boo xamante ni jëm na fa recruter ay doomi Jurbel je ne sais pas le nombre d' emplois yi nga xamante ni créé na ko mais créé na ay emploi et loolu noonu mën na indi dala ci dara ci Jurbel ah, dara mën na indi parce que da nga <laughs> ko wax mu leer Promoville ay tali lañ tey dëkk moom su ma ñëwee investir lii yow nga investir Malick Seck investir euh, euh, da nga am Assane Diop investir ah mais su amul infrastructure dëkk bi du dem waaw xam nga euh, comme ni nga ko waxee développement d'abord à part xam nga c'est nous l'État mais avant euh, gouvernement de Dougal loxoom d'abord wala même bu il y a l'effort de la population pour mën gouvernement donc y a des y a des fils de aussi ñi ngi ci euh, bon infrastructure mais il euh, ci créer des espaces verts Donc sax développé euh, mhm. hôtel a amul piscine. ankay a une piscine. Ah, piscine fu mu ne. am na euh, résidence bëgguma tudd turu. résidence tudd ko résidence Daaru Salaam. léegi ku ko moom. Euh, Xaadim Silla fait ko moom. nga yëf jàmbur la. Xaadim Silla Jurbel wala. non li ma wax a une piscine bu publique là? non pas piscine publique amu ah ok là? ah non. xam nga il faut il faut aussi nga junj que ne amul piscine bu public mais am na piscine am na am na man gis naa fa deux deux deux sites yoo xamante ni am na piscine muy BHP ak mais est-ce que tey doomu ñaare mais mais est-ce que piscine tamit mooy développer dëkk non yow piscine mhm. mën na doon benn maanaam benn mandarga la rek buy wane ne ñun tey boo demee si réewu tubaab yi commune bu nekk piscine yi foofu commune ñoo koy gérer réewu tubaab bi kon nga bëgg jël tëkkale ko non dama lay wax rek ñun ñun tay suñu ay non xam nga bo buggee jëm kanam mhm. il faut nga am ay seetu ay niitukaay kay mhm. yo xamné di nga si mhm. mën inspiré wu pour nga mëna avancer lool benn la léegi xoolal tey boo jëlee ku melni Malik Fall mom euh, bawol bawol la nekkoon champion d'Afrique champion du Sénégal champion d'Afrique ci walum fay mais loolu lu mu mën indil gox ak dëkk xamoon nu toll tey am na xale yoo xam tey ñun suñu amoon su njaareem amoon piscine publique damay wax piscine noonu rek. mais mun nga fa am champion du Sénégal. mun nga fa am champion d'Afrique dama jàpp ne. mun nga am champion du monde. dama jàpp ne Diourbel nag dafa soxla leneen lu dul ay piscine. déedéet xam nga. Diourbel lan la soxla xam nga loolu loolu dafay dafay nekk dafay nekk ci dernière dernière. dernière rang dernier de. non man dernière rang laa ko jàpp. parce que parce que dafa am yu ëpp loolu mën na loolu mën na xëcc. bu rëy a rëy gis nga euh, dëkk ak gox. Mhm. xam nga sax boobu ñuy woowee mille pat mhm. xam nga mhm. mille pat lay nekk mooy lépp la soxlaandoo mhm. léegi nag yow boo si mën jàpp rek mu dem rek mën nga surtout léegi réew moo xam ne tey ñun ndaw ñi ñoo fi ëpp ndaw ñi dafa am noo leen di cadrer noo leen di canaliser xaal ñoo nga wax ñu sa message euh, wala euh, euh, Baye Modou wax ñu sa message waaw man nag dafa am message bu may ma bu ma bëggoon bu ma bëggoon a dugg c'est pour le développement du Sénégal parce que dañoo dañoo gis que ne en ce moment là euh, ñu bëri ñu ngi jug pour pour pour pour pour ci réew mi pour jëm si nekk ci bopp réew mi donc ñooñu noonu ñëpp bu fekkente ne dañuy toog defar ay infrastructure ba pare am ñuy jug yàq infrastructure yooyu noonu est-ce que développement dina am ci réew mi muy benn ñaar ñaareel bi dafa am ci ay ay jalons yoo xamante ne bu ñu ko tegee dinañu mën a permettre développement gaaw ci réew mi dafa doon man dama ko tënk ci juróomi pàcc muy faju moo xamante ni dina dina mucc ayib te accès bi libre accès bi facile je veux dire njàng moo xamante ni aussi accès bi dina facile damay ñëw ci njàng moom noonu Tunkara dafa am benn circulaire buy dugg ci euh, école yi boo xamante ni c'est pour la réduction des inscriptions loolu le président de la république moo ko defoon mais dafa am ci enseignement technique ci école yi yoo xamante ni ñun ñi nga xamante ni bi ma def seconde 15000 francs laa inscriroon terminal ma def vingt parce que y' a six mille de l' du bac ren wala boog année prochaine incha allah képp ku ins vingt cinq mille ngay inscrire en classe de seconde. boo demee ba ba ba ba classe de terminale nga teg ci 6000 francs muy 31000 est ce que ñi nga xamante ni bëgg nañoo dem ci enseignement technique te amuñu doole jooju noonu danañ mën a danañ a am njàng léegi euh, Baye Modou ngay jeexale maa ngi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp d' abord di sant sama waa famille ak képp koo xamante ni mu ngi ñu doon suivre di sant Seck DG ak euh, le président du mouvement And Defar Suñu Gox et tous les membres du mouvement di sant waa Diourbel gépp di leen gërëm di la gërëm itam aywa euh, delloo ko njukkal Baye Modou